Thank you. waaw ñi ngi fii nga xam ne rek moom mooy terrain Bujuk donc comme ni ngeen ko déggee ni ngeen ko gisee ndox mi yëpp ak euh, li nga xam ne rek moom mooy pneu yi donc euh, ngeen gis ni yëpp euh, ci taw bi la ñi nga xam ni nag dañ ko joxoon benn entrepreneur entrepreneur bi nag liggéey bi nga xam ne def na lii mooy liggéey bi nga xam ni la fi def moo tax ñu ñëw tey taxaw fii pour waxtaan ak ki nga xam ne moom moo jiite jeunes yi nekk fii ci Bujuk pour mu wax nu lu tax lii ñoom ban gis lañ ci am ak ban taxawaay lañ ci am donc nag comme ni ngeen ko gisee pneu yi ñu ngi fii ci biir ndox mi ak borne yi donc nii ngeen gisee image yi yëpp donc moom moo nekk fi nga xam ne rek moom mooy bu jug waa Buju nag ñoom nee nañu lii moom fokk euh, gouvernement bi jóg ci ak ki nga xam ne rek moom mooy mairie bi pour ñu taxaw ci parce que bu tawaatee wala mu continuer rek di leen indil problème balaa mu leen di indil problème nag ñoom nag ñu taxaw jóg ci mu nekk li nga xam ne rek moom mu leen jëlal fi nga xam ne rek moom mooy terrain Buju laa dëkk ci biir dëkk bi donc euh, c'est à cause moo tax tey vraiment ñu taxaw vraiment di wane loo xam ne suñu naqar la ci biir dëkk bi ndaxte dafa am loo xam ne ni li olof Njaay di wax rek mbéjum kanam borom ma koy fajal boppam donc am na loo xam ne ñun en tant que jeune nekk fii juddoo fii ci biir dëkk bi depuis suñu taawu maam ñu nekk fii nekk doomu dëkk bi am na yooyu incident yoo xam ne bu ñu ko gisee ñun ñoo war a taxaw nekk ay responsable dénoncé ko parce que lii ngeen gis nii fi mu toll nii gis ngeen ndox mi gis ngeen

incident yi ñuy wax na li gën a garaaw mooy lan moom ba mu commencé liggéey affaire bi àndoon na commission fii ci biir dëkk bi ñun boo gisee instant boobu interview woon ñëwuñu woon doo attaqué ko peut-être li mu àndoon na commission ay mag ñoo xam ne si biir dëkk bi suñu ay nijaay suñu ay pap yoo xam ne bañoon leen créer problème moo tax parce que fii la njëkk gas ci diggu tàkk bi ba am benn booy boo xam ne noyé na fii euh, laboon na fii ba dee ba ñàkk ci bàkkanam donc lou rek ay la won yo xamné ñun jeune yi buñu jogon attaquer len rek peut-être problème dana am peut-être ñom commission bi sax mënon nañ ci am problème c'est lool motax ñu bay mu sedd est ce que comprendre mais mu waxon dana liggéey liggéey bi mu jaar yoon mais depuis lor defu fi dara gis ngeen ni parce que xam ngeen tak bi bu ko sekkon bu demon fenen di jeli souf di ñew diko sekk wala mu demon fenen jeli ban banko ñew andiko sekk ko bu tawé du mel ni parce que tak bi naka jek même bu dantaw ni rek la don mel donc bu liggéeyon fi liggéey bi war tak bi hein tak bi du ah? voilà tak bi du mel du du mel donc t'es bu tak bi mel ça veut dire que lim mu waron def defuñu ko te li ma ci gëna metti ko jox ci parcelle on lui a donné plus de 300 et quelques parcelles Ils xamni il ne mérite même pas 20 parcelles qui mérite wul sax jox 20 parcelles wala 10 parcelles sax donc li bu ngeen ko c'est des faits yo xamni peut-être euleuk on va dire que c'est le gouvernement on va dire que c'est le gouvernement té buñu attaquer le gouvernement on attaque directement le ministre de l'urbanisme et de l'habitat parce que Macky Sall li may wax ni rek peut mënul nekk fépp parce que Macky Sall dafa am ay yoo xam ne nit ku ne fu mu la teg ministère bu ne am lu mu la dénk donc non mairie bi yëg nañ ko parce que ñun lu ñu mën a wax tey en tant que jeune li ma a wax tey man mën naa wax ne tey mairie bi complice la complice la ak entrepreneur bi parce que lii bu fekkee mairie bi ànd ak entrepreneur bi ànd ak waa domaine ak waa urbanisme ñëw sur le terrain def état de ba jël ay kayit jébbal ko nit ñi donc ça veut dire dañu gis ne liggéey bi baax na te lii xam ngeen ne dara baaxu fi dara dara rien parce que xool leen lii pëne yi borne yi moom doo leen koy gis sax dootu leen sax gis gisul gisutul leen sax borne yi borne yi moom gisutul leen ko sax pëne yi rek ngeen di seen nii parce que pëne yi li nga samp mu xaw a kooye donc lii vraiment c' est à dénoncer loolu moo vraiment ñu ne nañu taxaw mbéjum kanam borom a koy fajal boppam donc ñun en tant que jeune ñu xam ne dëkk bi moo ñu ñor te dëkk bi la liggéeyal ba xëy dugg ci biir suuf bu ñu gisee lu ñu muy ay injustice ñun ñoo ci war a mën a dimbali gouvernement bi benen site bi la beneen site bi ñu ñëw léegi la parce que fii dafa nekk euh, affaire cosaan parce que déeg bii ngeen gis ni sama ginnaaw fii déeg la woon fii la ñuy defee suñu ndaw ñun ñëpp tey man j'ai 47 ans tey ñun ba ñu nekkee ay xale tout tànk fii lañ doon sangoo ci déeg bii donc benn paa bu dëkk ngaleel bu tudd Haye Balla Diop moom la ñu tuddee déeg bii déegu Haye Balla lañ koy wax ñun dégg nga donc fii lañ doon sangoo ba ñu nekkee ay xale te moom ba mu commencé terrassement bi fii commencé woon na ko sëkk donc ça veut dire sëkk bi mu ko sëkk moo doyul defar bi mu ko defar moo baaxul moo tax gis ngeen borne yee nekk nii suñu ginnaaw nii ngeen da gis nii borne yooyu gis ngeen tiwo yi tiwo yee nekk si biir ndox mi tiwo yi tiwo yu gudd la woon mais tey ndox mi li mu bëri bëri moo tax tiwo yu feeñatul sax tuuti lay feeñ donc yii ay incident la yoo xam ne vraiment yii vraiment dañ si war a jóg dañ si war a jóg parce que man li may li may wax rek toujours parce que mairie la Gandon warul woon seetaan lii waru ko woon nangu te li ñu gëm mooy lan mairie bi dafa dafa yaakaarul woon ndax élection locale yi daañu ko reporté ba ba ba décembre mais bu ñu xamoon ne daañu ko reporté ba décembre duñu ñu yàkkamti di joxe terrain yi mais dañu dañu yaakaaroon ni peut-être avant élection yi dana fekk dana dana fekk joxe guñu terrain yi loolu moo tax ñu yàkkamti le plus rapidement possible ñu joxe terrain yi pour mën a jot li ñuy jot avant élection bu leen fi fekkee baax na bu leen fi fekkul baax na te loolu nag vraiment war nañu jóg ci loolu parce que loolu baaxul ci population bi parce que am ëllëg ci biir tay fim mu toll nii li wax toujours moy li ñuy wax rek toujours ëllëg ci biir lepp lu mën a ñëw ci ndodd gouvernement bi lay lay lay lay répercuté te gouvernement bi du kenn ku dul ñi nga xam ne la Macky Sall wolu teg leen fi donc ñoñu war nañ ci jog le sous-préfet de l'arrondissement de Raw vraiment war na jog ci li parce que ndaw mi fi joggé ñun bindon nañ ko lettre en tant que jeune waxon ko ko bu yag mais ba nim fi joggé réagir woon

Thank you.